te ba ñuy commencé lu jëkk la <coughs> di ñaanaat yàlla ci lii <coughs> sosu di dolleeku ñu ñaan ci yàlla yàlla defal nu ci lopp suñu xalaat yàlla mën nañ ko yàlla na ko yàlla defal ndax bu leen yaakaar ni ñëpp du jógal yàlla de waaye am na ñoo xam ne yàlla moo leen sas pour ñu jógal nit ñi yàlla moo ne wal tàkkun minkum amut ummatun yad'una ilal xayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkari yàlla ne am na am ji jóg ci yéen di di lolu bax di ay lu bon di lolu bax li moy sakku lu jari nit ni ko koy def di li nga lu bax parce que doom adam mën la ñak naan mën la ñak sangu mën la ñak foot mën la ñak laab ci nga xamanteni moy julli nga xamanteni ku daabul amo julli te mën lo laab lu ci ndox kon ndox amna solo lol kon li ngeen commencé yalla ngeen commencé yalla nak yalla di sant nak fa tabarakallah bu baax a baax a baax a baax. ñoo ngi sant ñëpp képp ku fi teew ñoo ngi lay sant di ñaanal ñëpp jàmm di dalal ñëpp itam chef de village nee na ngeen dal jàmm di ñaan yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala lii ñuy def nii yàlla na xéewale baraw ba njëkk ba ndax bu njëkk ba de xéewale woon na de ñun ñëpp xam na ni xéewale na kon nag yàlla na xéewal gi gën a yokk baraw ba njëkk ba yàlla nañ ko murloo si jàmm ak salaam yàlla na xéewal ba ñu ñep ñu muurloo ko si jamm ak salam mom dal wax na ni kontaan yalla dogal nak mu am gant mo tax teewul mu yebal man may rakam mu yebal ma ma teewal ka xamna la mu mënon wax lepp sax xëy man duma ko mëno waye dal waxon na ma bo agge waxal gan ñi ni len nañu dal jamm am ni dekk bi seen dekk lu ñu ñep noko bok li itam joxon na si participant muy ñaanam mu ni yàlla na barkel yàlla na law ba tekkay ñep lol dal la non so de nga dalal len nga jottali wax ji nag xam lo du gudd. wasalaam lo rek la woon incha allah. ñu koy rafetlu eh, di sant ñi nga xamante aussi ñoo yombalal xale yi lii ba ñu mën cee jot ndax ku ne xam na ni ndox ci dund gi la bokk ca bu dem nga ba ñëw ca gisoom ndox mbaa amoom ndox di nga sa kon bu dogale dogalee ñu dem ba am lu ñu lo loo dem nañu ba ni ko jotna na a ah, seen xel nekk ci yokk ko pour askan wi doonu def lu dul sant leen ci gërëm leen ci ñaanal leen yàlla lii ngeen di bënn yàlla na ko yàlla barkeelal ndax lépp lu mënte doon barkeel rek moo ci am solo euh, def ngeen loo xamante ni aussi lu askan wi bëggoon la ndax ku ne xam na ni Kayaar gis ngeen temps yi yëpp ni ñuy jàmbate ndox mi kenn ku nekk yaa ngi wax mais itam ah ku yokkule da ngay xam ni il faut la nga defoon mu doon lenn dina manqué kon loolu aussi tam xam nañu ko ci ba tax na nun dañ leen koy nungul bu baax xam ni jàmbaar ngeen ndax depuis bi ngeen ko yoreeg léegi yàgg na te booba ba tey daanaka mën nañu ni yokkuteg askan wi moo tax ndox mi manqué kon il faut ngeen jël seen i matuwaay te it muy muy lii ngeen def tey jël ngeen i matuwaay pour ni léegi dañ leen di yokkal ndox mi ba ñu doon jàmbat dootuñu ko gis kon vraiment ñi ngi leen ci sant di leen ci gërëm ndax bu nu ñëwoon woon ba gis buñ ñu ko doon wax nii rek lu tax xam ko mais comme yàlla dogal na tam ñu dem ba dégg ni yéen a ngi yokkal askan wi am ndox loolu moo tax nu itam lanu jàppoon tey pour war caa dem dañu koo dagg ndax def naa biram mi woo na ma ma ne ko dafa amoon fu ma war a dem mais après ba ma waxee ni ma seen teewaay de am na ko kuñ ci soxla woon loolu moo tax ma dagg sama yitte yëpp ngir askan wi ñëw taxawal leen xamal leen ni leen daal li nu fekk fii ñun dal na suñu xel te it kontaan nañ ci seen liggéey parce que tam lii wax dëgg yàlla moom lañ soxla mais njàmbat li yëpp lii moo koy mën a saafara kon lu mu mënti doon tey lii ngeen def gis nanu ko teg nañ ci sunu bët te it ko eggee ci askan wi koo xamante ni dégg na sunu kàddoot ba ban nga dalal sam xel xam ne li nu fekk fii ñun dal na sunu xel kon yàlla na yàlla barkeelal li ngeen def yàlla na ko yàlla gën ful jëme ko kanam e, yàlla bàyyi fi ñi nga xamante ni aussi ñooy kilifa yi fi nekk e, di tundu jandeer di tund kayaar lépp lu mënti doon ñu di ko bokk xam ni lii mënuñu koo ñàkk xel yi ñu koy sottante ndax warut noo jëriñeen tey lu dul am xel kenn koo xamante ni jàpp nga ni lii sute nga ko sa moroom cim xel jàppale ko ci pour mu mën a avancer ndax loolu rek moo moo moo mooy sunu gàllankoor loolu nuy gàllankoor nag na ne yàlla dogal ñun ñu ànd ci xel yu rafet ndax defar rek moo ñu war ndax bu ñu la nee chef de quartier nga ak foo mën a nekk lu xew ci koñ baa lu xew ci dëkk il faut seeni xel dem si ñoom ndax ñoom Modou Laye Mbengue ñi ngi fii te ñoom ñëpp kayaar la ñu dëkk di ay chef de quartier euh, nooree ni mi ngi nii mbaawaan la dëkk euh, ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci biir euh, askanu Kayar nekk ci biir askanu Jandeer ñu tudd leen fii ci xawma ma seen tur mais ñu ngi leen di remercier ci li nga xamante ni aussi xale yi teewal nañu ko ci yéen muy loo xamante ni heure bu ñu demee ba forage bi am problème ñu war kaa vider seen aw askan ñooy génn ñëw jiitu su fi jàppale leen ci ñoo ngi leen ci sant ñoo ngi leen ciy gërëm. di wax ni nañu gën a jàppale ñi nga xamante ni aussi ñoo yor forage bi xam ni defaluñ ko kenn seen ñoom rek lañ koy defal ndax dañoo dagg seen yitte dagg seen lépp ngir maanaam li ñuy jàmbat ci wàllu ndox ñoom ñu taxaw ci loolu pour saafara ko kon yàlla na yàlla saafara lépp ñoo ngi sant ñoo ngi gërëm di sant yàlla defal jàmm. bisimilahi rahmaani rahim. di nuyu imam yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk représenté askan wi ak ki nga xamante ni moo représenté chef de village yu Santhiou Mame Gor ak notable yi nga xamante ni dañoo ànd ak ñun ñëpp di rafetlu teewaay bi bis nit bisu tey bi parce que ñun ñëpp xam na ni Azifor bu Kayar 2002 la commencé di liggéey te technicien yëpp dañu boole wax ni durée de vie yu forage 25 ans la durée suñu forage bi am na vingt ans donc ñuy gàttandu parce que durée de vie bi bu fekkee ni daf ko matal forage bi mën na affaissé wu léegi ñun ñu ni nañu anticiper gas un second forage comme ça ñu mën a anticiper euh, durée de vie forage boobu mu fekk ni nag forage bi li mu yanu attanatu ko parce que ñun ñëpp xam nañ ni état moo dindi for Asifor Asifor amatul ba fii may wax ak yéen tey jii état moom moo ko dindi moo tax li nga xamante ni moom sañ-sañ bi ñu amoon ci di waran ko waral moo doon wareef suñu diggante ak askan wi mënatuñ ko woon a mottali parce que bu ñu ko defee teggi yoon parce que Asifor amatul waaye nag liggéey bi dañ ko war a continuer parce que la nature a horreur du vide bi nga xamante ni nekk nañu loolu lii bañ koy mëbët ak léegi toll na si ñeenti at état dafa bañoon ni duñu jox autorisation parce que pour ñoom Aquatech moo war a jël ndox mi luñ fiy def Aquatech ko war a def ñuy maslaak ñoom di maslaak ñoom bañu am ay xarit yoo xamante ni ñu ngi liggéey ak ñoom waa OFOR ñu jàpp si ñu soog ñoo may permission pour ñu forer fora euh, puits bi ñu nekk di forer tey di sant nag ci démarche yooyu maire yi nga xamante ni ñoom ñoo seq forage bi muy maire commune de Kayar ak maire Jandère parce que li leen ci war lépp doxal nañ ko ba nga xamante ni vraiment ñun amuñu benn xarma yàlla suñu diggante ak ñoom parce que li ñu waroon lépp li leen waroon lépp def nañ ko di jégalu askanu kayaar parce que fi mu toll nii forage bi bi nu koy jël neuf cent onze clients moo fi amoon léegi ñu ngi ci cinq mille clients kon li ñuy naan ku dolli cere yokk ñeex dolli nañu cere mais ñeex bi lii moo ko war a yokk tey yàlla nañu si yàlla jàppale di sant ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo boot forage bii mooy waa sancu maam góor waa sancu maam góor amal nañ leen njukkal ñu ngi seede représentant chef de village que ni wax gis nañu seen taxaway parce que buñu musan pan fi ñun ño fi yendoondoo ak ñom di fanaanandoo ak je ne su santu maam gor ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que à chaque fois chaque 6 mois buñuy forage bi ñom dañuy ñew japp si kon amal nañ leen sant amal nañ leen njukkal li nak ñun dañoo joxoon ñoon ni liggey leen pour que askan wi jariñu si loolu lañu nek ñuy jéggelu encore une fois ci coupure intempestive yi nga am indépendant de notre volonté dañu am groupe électrogène coupure yi tax groupe bobu leg leg day pan. ñu yor ay forage ci ni day am bu amé pan amé te courant coupé mais ndox du am bu réseau bi bala pour que ñëpp mëna day am difficulté li waa kër Abdou Ndoye di dund man dama koy dund sama kër man yàlla dafa def ma dëkk ci benn montagne Kayar maay njëkk a ñàkk ndox maay mujjee am ndox Kayar ba Kayar daj kon li ñuy dund ñun ñëpp ñoo koy bokkandoo di dund xalaat nag warul ñaaw ci ni ñun dañuy tëj yeneen van yi di ubbil Kayar dong wallahi lazim musul am musul am musu ñoo tëj benn van pour ubbi kayaar pour kayaar am ndox ñun ñëpp ñun ñoo ci bokk yem lay servir Kayar mooy servir Kër Abdou Ndoye mooy servir mbaawan mooy servir Santhiou Mame Gor kon amuñu benn intérêt di xañ ma samba wala di jox ma demba wala di jox ma demba di xañ ma samba ñun njaaxaanaay la ñuy tudde tëddee ñuy ñaan ñi nga xamante ni ay porteur de voix lañu képp koo xamante ni dégg nga ci Asifor loo xamante ni yaakaar nga ni du noonu na approché wu les services de l'Asifor ñun si maison de verre la ñu nekk amuñu lu ñuy nëbb kenn ku ci ñew di nga am information mo xam nga gëm mo xam nga ñak gëm mais information bi nga xamanteni mom moy deug ku ñew dinañ la ko jox puisque Azifor nak amatul ñun suñu mandat jeex na depuis Mathusalem ñun ñëwee Azifor bi mus a wër si autorité yi di leen wax ni leen suñu mandat jeex na nañu renouveler instant bi ñu commencé renouvellement yi si le état ni Azifor amatul ci lañu ñu arrêté lépp kon buñ fi nekké ni ba nëga ni c'est parce que mënuñoo bayyi dem tok ni il faut nous continuer bakara, nous am relève bi heureusement autorité yu bees parce que man am réunion avec monsieur le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement en tant que secrétaire général de l'association nationale des Azifor et azurep du Sénégal Biñu démé ñom dañu ne xalaatuñu jox ndox mi ay privé parce que ndox c'est un patrimoine ta patrimoine kenn ko délégué kon am nañu yaakaar ni li ñu nekkari woon que ndox mi di dem ci ay privé ñii dinañ ko dakkal mais nag dañu ne nañ leen may temps ñoom ñu def audit fu OFOR parce que OFOR moom mooy yor charge azifor yi fi nekk yëpp may fàttali ni y' a 144 azifor yoo xamante ni ñu ngi ci euh, région bu Thiès genn wàll gi yëpp joxoon nañ ko Aquatec mais ñi nga xamante population yi ñu ngi commencé nunguwaat yi demoon ci euh, Aquatec parce que Aquatec day ñëw ngacc la fa nekkoon ci xaalis dem yoonam ñu si bari bi ñuy dem dañ leen fa bàyyi ak ay panne yalla def na nak ñun musagun fee ñew parce que li ñuy proposer population yi ñun mom lañ ñu doon defal population yi li ak Aquatech doon proposer population yi mom la defal population yi kon ñom amon nañu euh doute pour ñew fi pour jël ci Asivor Kayar lolo tax ba tey ji ñun ñu nek fi di wax ni quoi waaw li wér te wóor mooy que ni euh, jarul ñuy guddal après li nek dinañ ko waxtane mais li am ba des dal moy que li nga xamanteni mom lañu gas tay ji Yalna na tolloog maxaama ak bi nga xamanteni ni lañu ko gis gas wala mu ëpp ko parce que mom rek moy njariñu askan wi moy wax askan wi natural je parle du gender naturel waxuma commune Kayar waxuma commune gender mais le gender naturel fukki forage ak ben ngi fi yo xamanteni ñu ngi gas di yobbu directement Dakar te Dakar dañuy am ay coupure kon ñun coupure yu ñi am nañu ko muñ parce que mok liggey bi ñoo mais zone bi ñaari forage ma fa nekk lan moo tax muy waral muy pang muy muy manque ndox xanaa forage dañuy servir Dakar zone bi dëggool ma la wax léegi y' a plus de 11 forages yoo xamante ni ñu ngi tànq fii di demale directement Dakar te zone bi day ñàkk ndox c' est une aberration état moom moo choisir loolu parce que peut-être changement dina am avec les nouvelles autorités là mais autorités fi ñëkk ni fi nekkoon ndox yi dañ ko délégué à des privés yo xamanteni ñom ñoom warone ñew jël ko si lool lañu ñu nekk ba légui puisque nag la fi nekkoon jógagu fi té ñi fi nekk ni dañuy def étude li fi nekk il faut que ñu may leen un temps ñu diagnostiquer le milieu gis li nga xamanteni mo bax li baxul ñom ñu def seen rectificatif ci biir rectificatif yoyu xamna ni renouvellement si lay bokk renouvellement bi ñun ñoo leen ko gëna yakamti yàkkamti jërëjëf ñu ngi nuyu askan wi fi teew yëpp ñi teew ci béréb bi ak ñi toog seen kër di seetaan di nuyu honorable maire Aliou Ndoye di nuyu honorable maire Amadou Mam ak délégation bi mu àndal di nuyu chef du village ñu ngi wax alhamdulilah rabbil alamin ndax wax dëgg yàlla askan wi de lii moom xel mu dal ci ñoom parce que dafa am ñaari muñ dafa am muñ bu amul app ak muñ bu am app bii nag yaakaar naa am na app ndax buñ la nee fekk ñaari weer la nga doon jooytu di ko yuux di ko wax fu ne dina saafaraw kon bés boo yeewu boo ko jéggee dootoo ko jéggiwaat beneen ngay songar kon bu yàggee mu jeex kon askan wi ak dégg yàlla sant yàlla ak xel mu dal lañ ci war a ànd coow li bari na ñun ñëpp dañuy jël suñu kaddu di wax c'est parce que nag dañuy waxloo bu leen toog di seetaan nit ñi di rooti guddeeg bëccëg ñun ay trois heures du matin la ñuy jóg pour mën a root fekk ñëpp ngi nelaw nga mën a root say bari ak say bidon teg ndab bu fa mën a def ndox rek di ko duy réserver teg xaar kon boo amee ci équipe boo xam ne wax dëgg yàlla nee nañu neuf cent nangam la ñu déparé moom lañ ci fekkoon tey ñu ngi ci cinq mille nangam ah ku déparé lu matul junni ba nga teg ci yeneen ñeenti junni ak lu teg ci benn forage moom buñ ñu nee benn forage boobu attuna ko aussi nit ñi war nañ ko gëm mais liñ leen di ñaan rek mooy bu lii amatee yàlla bu mu amaat da ngeen di génn communiquer ak askan wi parce que communication mooy lépp nit kump moo koy rey donte sax mën nga ne ci dëgg mais bu kump doxee seen diggante rek day jàpp ne yow liggéeyoo. def defoo dara lii ngeen def nii même ba ci information bi si lay joxe nii man maa ngi soog a xam ne Eau Kayar bi yéen yéen yéen a ko jox ndox yàlla xam na ko wallahi al azim maa ngi koy soog xam te dafa am solo parce que def ñu ñu bëri dañ naan euh, ndox mi yàqu na daa am xet bar naa moo ko def lii wala leneen moo ko defalee wala leneen moo ko defalee te or ko ndox mi baax na moo gën forage wax naa ko benn waay mu ne ma mënul nekk ma ne ko forage yi ñuy dem di jëndi bidon gi téeméer bidon juróom fukk ndox mi neexul xëy na mais moo ko gën téeméer junni yoon parce que bii xëy na am na lu ci waa def ci loo xam ne moon na aar ndox mi tuuti mais forage bee ñuy dem quinze mètres la wala dix mètres da ngay ñëw waa rootal nga fay bidon fukki dërëm wala bidon cent franc nga ñëw jaar ko waa ji cinq cent bee nag forage bi dem na deux cent cinquante mètres ci suuf mënul yem kon bu am bu amee lenn luy polluer ndox mi mu koy contaminer borom jamit bu gàtt bi yaakaar naa ci lay dem ci borom dix mètres bi wala borom quinze mètres bi waaye mënta bay borom quinze mètres bi laaloo ko contaminer wu ko ba pare mu dem di contaminer nabu deux cent cinquante mètres mënul yenu maana kon dafa am loo xam ne il fallait ñun ñun itam ñun ñi nga xam ne ñun ñooy consommer ndox mi ñu ànd ci xel mu dal wóolu ñi nga xam ne ci la ñu nekk di liggéey parce que man à chaque fois su ma duggee di wax dama laan génn leen wax nit ñi lu xew. barki dem moo si mujj bi ma gisee président dama nekk dugg leen génn leen wax askan wi lan moo xew il faut ñu wax il faut il faut li askan wi xam li xew lan la ñu ngi jégalu ci kàddu yu guddi yi di nuyu ñëpp di sargal ñëpp salaamaaleykum.